ëttu murit te ngeen baaxoo di ko ànd ak seen mbokkum taalibe Fallou Gala Syll ñu di ko amal alxames jot bu vingt heures tegalee euh, fanweeri minute ci seen télévision Lamp Fall TV mbokk yi ñu amaat mbégte di nuyu Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal yàlla sunu boroom gën ko fee yàggal te gën a dolli ak wéram waaye ñaanal yàlla sëriñ Mor Faati mi nga xam ne moo di xalifa maam Cheikh Anta na ko yàlla may fan wu gudd wa ànd ak wér gu yaram berel ab ziar sëriñ Jiili Mbàkke di xalifa sëriñ Mudu Maamun ziare sëriñ Abo ibnu Cheikh Mahamadul Maamun ak mbooleem njabootug nag maam Cheikh Anta gépp di fab siyaar boobu di ko teg ci loxol sunu buntu ci yoon wi di maam Cheikh Anta ibnu Cheikh Mouhamad Roqaya di ko ñaanal yàlla mu may ko fan wu gudd ànd ak wér yaram te defal ko mbooleem rakkam yi toog ci ginnaawam yëpp ñu jagleel ab siyaar soxna Daba Mbàkke bintu maam Cheikh Anta njabootam ñu ràññi ci soxna Yàkkale Mbàkke ak soxna Aysatu Mbàkke bintu Cheikh Mahamadul Maamun ñoo ngi nuyu mbooleem téléspectateurs yi jàkkaarloo ñoo di ñu seetaan di am mbégte di ñëwaat ak yéen seen émission bi ñu duppee ëttu murit te ji bokk yi ñu nekk ci ëtt boo xam ne <clears throat> mën nañoo wax ne moo jur ëtt yëpp nekkit ci ëtt boo xam ne mën nañ ne moo di ëttu murit dëgg nag ndax fii la murit déparé ëtt boobu moo di daaru salaam mbokk yi seen émission ëttu murit tey ñu fas ko yéene jëmee ci bis bi nga xam ne benn bis la ci àdduna di bis boo xam ne bu amutoon der bu ñuul du moom boppam waaye muy bis boo xam ne it bu amutoon lislaam du am ndam waaye bis la boo xam ne it bu amutoon njariñ li daj àdduna du ko mën a daj te bis boobu moo di bis bi sëriñ Touba jóge woon ci géej gi te ñëwaat ko Daaru Salaam mbokk yi xam ngeen ne weeru digg teeru na màggaluk Daaru Salaam fukki fan ak juróom-ñeent ci digg wi lay doon war a dëppoo ak le quinze ci weeru tubaab le douze astafurlah mbokk yi bis boobu nag moo tax tey jii ñu ñëw fas yéene ànd ak yéen ci première numéro bi ndax daa doon bis boo xam ne résultat delsi gi daa feeñ avant dem gi di am résultat delsi gi dafa feeñ laata dem gi di am résultat delsi boobu moo di xam ngeen ne sëriñ bi euh, bi mu déparé Mbacke Bari wala sax laata muy déparé Mbacke Bari bi mu jaayantee ak boromam subhanahu wa taala waaye defe ko ci ron Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ca Touba te loolu histoire del si ci ay yoon mooy jaayante gim jaayante jaayante ci jàkkaam jooju nga xam ne moo di jàkka ji nekk daaru xudus te sëriñ Mbàkke maddina ya salaatoon ko ñoo ngi siyaar ab xalifaam di sëriñ seex tey taaw sëti maam seexante yëpp mu mag ci ma wax ne sëriñ Touba loolu la génn Mbàkke la génn Touba ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar waaye dem Mbacke Bari it nag Mbacke Bari mu def fa ay weer nattu ba fekk ko fa mu jóge fa ci weeru août dem dar tubaab yi atte ko seen atte bu ñaaw bu bon boobu sëriñ bi waxal boppam ci bi nit ñi jaaxle mu ne leen ma <clears throat> allamani rafanu fi safina bi am na nii xadimu sil madina kon moom am na lu ko leer nañ ñi ne day dem liggéeyali yàlla liggéeyali yonent bi waaye day del siwaat moom Serigne Touba loolu moo sabab mu dem ci géej gi waaye diirub nag mu ne ci géej gi di ci liggéey am xelam ay yitteem musta jóg ci daaru salaam ba lu ëpp ci ay xasidaam moo xam mu taalife ko ci géej gi wala fu mu ko mën a taalife da ngay gis ne da cay tudd daaru salaam lu bari tey ñaan borom bi subhanahu wa mu jëlewaat ko ci noonu yóbbu waat ko daaru salaam loolu Serigne Touba dund na ko ci Gabon ci ko li tàmbalee 1895 ba mille cent 1901 1895 ba 1901 1901 ci la maam Cheikh jóge daaru salaam ànd ak alaaji Mouhamadou Ndiaye Diop def waajtaay wu wax ne mënatut a ñàkk seeti Serigne Touba ca Gabon te loolu lool li tax mu mën a am moo dina xam ngeen ne Serigne Mouhamadou Lo Dagana keroog bi mu demee ci géej gi fekki Serigne Touba ci pas-pasam bu rëy boobu nga xam ne sëñ Moussa Ka nee na xëyee na kokki gay kokki guy bu sub talaata namm ci géej gi ba ñu naa xatmaata ba bis ba dellusee ba weer wa dellusee ca déwén ak bis ba ci la soog a seeru Cheikh Ahmadou Bamba neex ma kon day mel ne moom moomu ba mu demee nag wax na ci làmmiñam ne li ko sëñ Touba njëkk a laaj bokk na ci ana seex muy ana maam Cheikh kon kooku ku sëñ Touba bàyyi woon xel la bind na ko bataaxalit mu àndaale ko bi mu ñëwee nag ba xamal sëñ Touba maam Cheikh na ko gis naa sëñ Bamba mu ne ko réew mum nekk mu ne ko réew mum Gabon ci la maam Cheikh wax ak El Hadj Mun Jaay Jóob ci ne ko nuñ mën a def ba fekki sëñ Tuubaa Gabon nag nañ ko def ci lañ def seen waajtaay wu rëy woowu ba dem Gabon ba ñu demee gabonit it sëriñ Tuubaa bokk na ci lim ko wax mooy maam Cheikh mooy seex day fii nga ma fekk ma toog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa fi toogaloon moo ma wax sax ne ma yaa ngi am gan bi ma jógee laala seen mu ne ay ko ne lal bii nag ci la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam toogoon daal kon waaye seex mboolem lu fi lu fi ay bagaas yóbbaale ko ndax maa ngi ñëw topp sa ginnaaw coo ci la maam Seex Anta mboolem bagaas sëñ Tuubaa yi ci ëpp tam doonan ay bagaas yi boppam te buy ñëw dana galfan bagaas yëpp ba ci sottiti xalima ba ci këyit këyit guñ folli ba ci ay butéeli daa ak lum ci man di doon sëñ Tuubaa mosu cee ci dara loolu lépp maam Cheikh Anta da koo duy ci ay xotti saaku àndaale ko Daaru Salaam cooc la ko sëñ Tuubaa joxe woon it xasidaam yooyu nga xam ne ci la jaari woon Tunisie moo la ko sëñ Tuubaa nga xam ne moo njëkk a mool xasida yi sëriñ Tuubaa yi loolu nag bi weer woowu jàllee rek ci la sëñ Tuubaa daal di tàmbali ci waajtaay xam ngeen ne waxal na boppam ci xasida yi wax ne lahu taala rujuuxi min idaaya ila daari salaami allati yàlla mu kawe mi ñeel yàlla mu kawe mi yàlla mu màgg mi moom yàlla ñeel na ko mu dogal rujuuxi samak dellu min hidaaya tukkee ci sam noon ya tukkee ca noon ya bu ma jógee ca noon ya ilaa daari salaam ma jëmaat nag daaru salaam ci kër googu nga xam ne mooy sama kër ga nga xam ne danaa fa dem yee ko naa ko tub naa bi taj jiidi naa ko tabaxalaat ak yee danaa ko yee kon sëriñ bi waxoon na boppam ci ne dana ñibbisiwaat daaru salaam cooca it la sëñ bi fàggu sërice bi nga xam ne buy ñëw daaru salaam moom lay ëndaale bi mu waxee ne ñibbi jot na rek la wax ne kon sërice mënut a ñàkk mu wax ak boromam subhanahu wa taala ci ne ko joge naa ci njaboot ga lu yàgg ay at gisuñu ma te namm nañ ma te gone bu juram tukkee buy ñëw daf ko war a àndaale sëri ca sun borom subhanahu wa taala wax ak ci lisaanu xaal na ko lan nga bëgg a yóbbaale sëri mu ne ijhal rujuu'i ila xawmi saadatana wal takfina yawma jamxil xalqi niiraana sëñ Tuubaa moo waxaat ak boromam subhaanahu wa taala na ko yow yàlla defal sama dellu gii demaat ca sama nit ña ba dafa waxoon ne dogal nga sama dellu jóge ci noon yi jëmaat ci sama dëkk bu mu wax nag ne su may demaat ci sama dëkk ba nag sama delluwaat googu may delluwaat ci sama dëkk ba jëm ci sama nit ña nga xam ne ñoom laa fa bàyyi woon nee na tuyaa bay dellu gi na doon ci ñoom ak texe suñ ma tegee bët rek ñoom ñëpp nañ texe bu ñu tegee texe wal tag fii naa yow ma jamxil xalqi niiraana bis ba yàlla dajalewaat mbooloo mépp ñoo àndandoo nit ak jinne malaayka teew su boobaa moom nanga leen fa fegal gàcca yow sun borom subhanahu wa taala kon sëri ci bu gën a doon wala bu gën a rëy wala bu gën a màgg wala bu gën a tedd sëricë bi Serigne Touba àndaale ci géej gi andi ko Daaru Salaam sëricë melaatu nii amul wenn woggu suusal wu toll ne woggu sëñ Touba wi ana wenn woggu wu gën a saf suukar woggu wi sëñ Touba àndaale Daaru Salaam loolu moo tax sëñ Touba bi mu jógee ci géej gi wàcc ndakaaru bari na ci ay kilifa yu demoon ca teeru ndakaaru ba teeru ji sëriñ bu sëriñ bu mag bi waaye wax nañ ne bata bi day bi mu teeree ab diir am na ab tubaab as tubaab su weex su génn as tubaab su weex su génn ci ni ko alaaji mun njaay jóob nettalee yor ab kask sol tubay ju gàtt ak simis bu jot simis bu gàtt ca lépp weex mu dax ñetti ñetti jéego ci escalier bi taxaw fi lakk tudd maam Cheikh Anta na ana maam Anta Cheikh Anta Cheikh Sidi Muxtaar neena na maam Cheikh Anta na bërët waaye nee na dafa na bërët mel na ku lafañ nga xam ne dafa raam escalier yi daf ko doon daf ko doon daf ko doon jéggate ak loxo yi ak tànk yi ndax fitna mu dugg ci biir fekk sëriñ bi copp ndaay jublu penku na mu baaxoo tooge nee na fop ñaari loxo yi dar ko ca bopp ba nee na ma ne asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam kooku seex nee na ma ne ko waaw mu ne ma dem nañ ba ñëw baat boobu la ma ko sëñ Tuubaa njëkk wax dem nañ ba ñëw de ma ne ko alhamdulilahi rabbil alamin waaye taxut mu geestu moom sëriñ bi mi ngi jullu penku rek fam ñaari loxo yi daal ko ca bopp ko seex mu ne ko mbàkke mu ne ko bañun ko topp suñuy tànk bayiwuñ fa jeexital woo xam ne buñ ko nettalee ngeen rus seex mu ne ko mbàkke mu ne ko dem nañ ba ñëw mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin mu ne ko des na diir bu gàtt lu waay gën a téye bëgg bala koo am daa ñëw ci suñu dëkk boobee te foo dégg yiw dara nag seex mu naa mu ne ko boroom loxo bu tuut bii moo ko fa def maam Seex xool melokaan wi nga xam ne moom la sëriñ bi mel ak yitte ji nga xam ne nit ñi jox nañ ko ko ak nammeel gi mu xam ne nii bu ko sëñ Tuubaa wàcce waalee dana daw yaram ci taalibe yi teyit coow ma na faa bari maam Seex daa di daa di daa di junj sëriñ bi mu ne ko dafa am lu mat a defaraat mu ne ko waaw Mbàkke mu ne ko bisimilah maam Seex Anta di jël ak leewukaay daggukaay yi nga xam ne moom la daan bus ko am na ko mag ñi daan tuddee yi ñuy dagg ay we moom la maam Seex Anta jël tàllal mbubbam fab loxoy sëriñ bi teg ci dagg we yëpp dagg we yi tànk yi lépp ëmb ko moom sëñ gaawaan teg fas ko ci musuwaar ndax nee na booba we yi sëq na sëqaay boo xam ne jéggi na dayo waaye nee waxuma dara waaye yar melokaanu yaram wi tut yi ci nekk am sax ne boo koy làmbu dafay mel ne ay neewoo te nee na mu wóor na ma ne lii lépp matt matti godd ya ko doon matt rek moo ko def am sax na ma ma ma ma ma ma ma ma ma jekkalaat kawar yi wàññi we yi ba xam ne daal mënees na koo gis ci zahir nee na ma daal di soog a tag jël ñaari gaal. ci sama ñaari loxo bu nee ma jël ci gaal génn ba tolloog buntu escalier yi bi ñaari gaal yi may tolloog buntu escalier yi nee na ci la ma Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina fekk ca kaw nee na xel wi maam Cheikh Anta maam Cheikh Ibrahima Fall accès nee na wuute wutoon ne bata bee deqiwaat nee na mu daal dugg ci biir fekk fi ku tedd ki bagage yi ci des lépp Cheikh Ibrahima ko génne sëriñ bi daal di génn topp ci ñoom daal di wax maam Cheikh Anta na ko nag. damay jaari ndar waaye yow demal daaru salaam te toog nekk ma fa foo ma dégg lu yàgg-yàgg xamal ne bagage yi benn du ci teppeeku bagage yëpp na dem daaru salaam nekk ma fa sa jëmbit nga yóbbu ko daaru salaam nekk ma fa maa ngi ñëw maam xam ne daal di dajale bagage Serigne Touba yëpp sarse ko wut si daaru salaam sëñ Touba wàcc ndakaaru ci novembre 1902 déedéet waaw sëñ Tuubaa mi ngi wàcc novembre 1902 waaye jaari ndar ndax booba ndar mooy capitalu senegal te bi muy dem ay dossier foofu lañ ko signé woon kon faw mu delluwaat ndar defaat fa décharge bu tegtale na ñëw na mu demaat ndar def fa bi bind fa ay këyit jóge fa jaari njeng jaw kër sëñ sëñ ba jaw jóge fa jaari sànnoo si kër sëñ am fa weer fa la woore jóge Sannoosi jaari jaar na waadaan wala ba mu ba mu jógee njàng jaw la fa jaar lenn am na ci mu jóge fa jaari màkk baabu jóge màkk baabu jaar kokki jóge fa ñëw mbàkke kajoor jëw mbàkke kajoor jaar ci dëkki dëkk yooyu bàyyiwu ci benn dëkk ba ni mu ñëwee bi mu jógee nag euh, bi mu jógee yoon woowu daal la topp bi yàlla dogalee nag mu war a jëm si daaru salaam mu war a jëm si daaru salaam ci la wax kenn ci fere yim àndaloon na ko nee nañ dañoo wëggee ci déeg bi nekk bi ci wetu daaru xadim fi lañ wëggee seeni fas waxtu gee nee na sëriñ bi ne ko yow de da war a yokk sa jéegoy fas te jiitu ji ñu daaru salaam xamal borom gaawaan ne ko ne ko foofu lañ jëm si ndax nee na ñu ngi soog a xam fan la sëñ Tuubaa jëm directement nee na foofu la départ moom daq aw fasam nee na bi muy ñëw daaru salaam dafa fekk ne waxtu julli fajar mi ngi bëgg a jege nee na nag xamut ba xam ci kër gi fan la fi borom gaawaan ne te gisut kenn ku waxal nee na ci digg ëtt bi rek la taxaw ko fasam daal di wax seexanta seexanta ca kaw nee na ni suuti ma dégg bunt yu ubbi ma ne ko sëñ Tuubaa ngi ñëw nee na matut xefex xippi daal borom gaawaan génn fab ñaari loxo yi boot ko ca kaw daal ne baat boobu ku ko wax may naa ko aw naaru góor ki wax baat boobu may naa ko fasu naaru góor nee na fi may wàccee maam seexanta tàmbali maa laaj wet gu ngeen jógee fu mu nekk ak yooyu ni suuti ñu seen gawa pënd bi ak gawar gi ci fajar si nee na sëriñ bi daal di agsi bi mu agsee maam Cheikh Anta daal di dal ci kawam nit ñi commencé def sëñ bi ne ko seex defaru leen ñu julli nee na daal di ñëw nag ci jumaa jii nga xam ne mooy jàkka ji sëriñ tubaa njëkk am ci dëkk bu moom dëkk bu sëñ tubaa moom jàkka ji la ko la ci njëkk am bis bi mu ko sancee it wax nañ ne moo fi noddu tisbaar Modou Matar Mbay sama maam Modou Matar Mbay ki jur sama maam ju jur sama ndey moom la fi ñëkk noddu loo tisbaar mu noddu ko sëñ Touba jiite tisbaar jooju nee na bi ñu àggee ci saan si sëñ Touba noddal boppam takku takkusaan na ko ma taar jiiteel Modou Matar Mbay jiite bi timis jotee Modou Matar Mbay noddaat sëñ Touba jiite bi gee jotee sëñ Touba du Modou Matar Mbay jiite bi fajar jotee Modou Matar Mbay noddu sëñ Touba jiite daal ko ne Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko seen ja seen jumaangoog seen jàkkaangoog loolu moo waral ba fii ñu ko toll njabootu Modou Matar Mbay di fi noddu loolu loolu moo andi sabab sax sëñ Touba ci jàkka ji fi la daal di jullee fajar bi mu jullee fajar ba noppi daadi dugg ci biir kër gi nag bañ xëyee nag la mbooloo mépp màbb fu nit di fa jóge maam Cheikh Anta nag daal di wax na tey jii sama man-man dana manante ak sama am-am ndax ki ma gënal ci àdduna ñëw na ci sama kër daal lu ma waay dencaloon na ko yët bu dee xaalis andi ko bu dee jur andi ko lu mu mën a doon andi ko moo tax sëñ Moussa Ka naan fukki nag ak ñaar ak gëleem guy bëmb la Sidi Anta ren jox ko Bamba ba muy ayug bi seex na tey ma ren di nit kuy taxaw jox tan yi ndax ñu man di maam Cheikh bi sëñ Touba di ñëw fekk na booba kër gi ay këri seng la. ak i sàkket waaye bëggut bëtub sëñ tubaab yi tege ci lenn luy nuru lu xajam wala lu lu tilim daa daal di dem Mbàkke ci naaru faas yi mu daal di ramasse mbooleem piis yi ñu amoon piis yi ndima yi ñu amoon moom la maam Seex Anta dikk ne nañ ko wodde taax mi wodde ko seng yi mooy lii xew jamono rek nit ñi naan ay papier peint ak yu demee noonu moo tax sëñ mu Ka naan ay piis la wodde taax ma Bàmba wàccoon biir ak biteeg mat la ya buur ya sàkkoon baraada buñ doore wurus baa xaalis ak kaasi weer lay naane loolu laa gis ay mbàjji leen ak derinaar lay boole toog yi fatoo ki ngeganaay lay lay lay boole maanaam xeeti xeeti taraanga li ci maam Cheikh defal sëñ Touba ci bis boobu wax nañ ne bi yoonu murit sosoo 1882 ca Mbàkke Kajoor ba 1903 ba 1903 bis bi sëñ tubaa njëkk a yendu ak maam Cheikh jóge ci géej gi la sëñ tubaa njëkk a am mbégteem zahir ci digganteem ak njabootam nga xam ne toog na jàmm képp fekk ko fi mu ne tubaab yi bundu xalaatuñ ko ceddo yi buuxuñu ko andiliwuñ ko benn jafe-jafe njabootuk boppam giit bisub keroog la njëkk am mbégte ci sëñ tubaa mbégte moomu ñu am loolu moo tax may wax ne màggaluk daaru salaam moo mag ci màggal yi ci ab daje donte ci ay woote am na màggal yu ko mag waaye màggaluk daje màggalu Daaru Salaam ci mag ndax bi sëñ Tuubaa jógee ci géej gi fii la mbooloom murit njëkk a daje di terlante di béglante bis boobu mooy màggaluk Daaru Salaam moo tax mooy wax ne sërite boobu képp koo xamante ni bii bëgg nga ci mooy dangay ngay màggal si Daaru Salaam moo tax sëñ Moussa ko wax ne maam Cheikh wax na bis bii la laay woote fii Daaru Salaam waaju fi ñëw buy dem am xayra maraam maanaam bis bi bi sëñ ñëwee fii daf fee def weer sëñ tubaa daf fee def weer ndax dafay ñëw ñaar fukki fan ci aw korite dafay ñëw ñaar fukki fan ci aw korite toog fi ba ñaar fukki fan ci diggu tabaski loolu weer la loolu li taxawoon sëñ tubaa am fi weer mooy tuubaa sun borom am na sart bu mu ko ci tegaloon ba mënatu koo gis ak bëtam moo tax bi ñuy jógee Thièyène Jolof sëñ Tuubaa nangu wutoon a xool dëkk bi dafa téenoon donte bëgg na ko bàgg ci lool daaru alimul xabiir joxoon na ko sëñ daam Abdourahman loo fa la nekkoon di jàngale daaru salaam la joxoon seexanta daaru marnaan gim sañcoon lakk na amaatut fu ne mu joxoon ndigal maam Thierno Ibrahim keroog bi maam seexanta demee Gabon plan ba xam naa du ñàkk des na ko mas a wane ndax mi ngi ci archive yi waaye plan bi El Hadj Moundiaye Diop moo ko rëddoon plan boobu la sëñ Touba faboon jox ko maam Cheikh Anta ne ko jox ko Thierno Ibra Fati maam Thierno na ko boo demee ne na ma ko defal ci sama kër ga ci Daaru Maraan néeg yooyu nag moom la maam Thierno Ibrahim doon liggéeyal sëñ Touba te noppeegu toon loolu moo tax bi sëñ Touba ñëwee mu toog weer Daaru Salaam ngir kër ga mën a noppi. weer wi maam Cheikh Anta def Daaru Salaam nag ngir nuy liggéey kër ga loolu moo tax bi kër gi noppee Sëriñ Tuubaa digal maam Cheikh ma Fall mu dem wuti ay lal coowul lal yooyu moo sababaat 1914 1904 ñu jëlaat Sëriñ tubaa yóbbu ko gànnaar waaye ala kulli xaal ak lu mën a xew rek Sëriñ tubaa moom def na diggiwut korité def na korité ñaar fukki fan ci korité ba ñaar fukki fan ci diggu tabaski def na ko daaru salaam li sabab njàngum alquran nii ñu di ko def fukki fan ak juróom ci ci ci digg wi xam nga damay wax ne toujours màggalug daaru salaam mooy màggalug juróomi fan yoo xam ne bis bu yàlla sàkk ñu daje rey ay nag yu baree baree baree bari togg ceeb bu bari terale ko jàngkati alquran yi ba muy juróomi fan ñu sog a màggal bisub màggal gi daaru salaam la am daaray alquran yi nekk diggante daaru salaam ak njaareem ak tuubaak daaru moxteeg madina tureeg boo feleg dëkk yi ko wër yëpp fii daje ñu defal leen ay bernde yu mag ñu yendoo fee jàng alxuraan ba ngoon jot oto yi delloowaat leen ba muy juróomi fan ñu soog a def màggalu daaru salaam loolu li ko sabab mooy sëñ Tuubaa bi mu fi tegee ba fukki fan ak juróom ci diggiw diggiw tabaski ci la dem daaru alimul xabir seeti sëñ daam Abdourahman Lo ndax booba nee na woon sëñ daam lu ma yàgg-yàgg daaru salaam bul fa ñëw toogal néeg ma ndaam fi lay jëm si fukki fan ak juróom ci diggu tabaski nag ci la sëñ Tuubaa xëyee dem daaru alimul xabir yendoog sëñ ndaam ba ngoon mu del siwaat amaat fi ñetti fan xëyee fi jël ay bagaasam dem daarul manaan loolu moo tax njëkk gi mu njëkk a génne daaru salaam ci fukki fan ak juróom ci digg ñu di ci tàmbali njàngoom alquran njàng moom it bi yàlla dogalee maam Cheikh Anta war a taare xalaat ñibbi si jóge ci géej gi te digal ko sëriñ Muudu Maamun na ko Modou Mamoun mu ne ko Mbàkke mu ne ko yow da ngaa am bis boo xam ne benn bis melut ne moom damaa bëgg nga di ko woote mu ne ko bis ban la mu ne ko bis bi sëñ Tuubaa roote woon ba mu fees mu ko Daaru Salaam te yenn ko waat jëm fenn bis boobu laa bëgg bu accepté nga woote ko sëñ ne ko ku ma ko digal ma def ko mu ne ko du ma yem ci digal la ko waaye dama lay moo tax bi ko ko sëñ Modou maam Cheikh Anta waxee sëñ Modou Mamoun daal di wax ak mag ñi mag ñi bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal borom gaawaan waaye yëmu ci mooy magi taalibe yi sëñ Mor Fati Touré alaaji mun Njaay Jóob sëñ Góora Baaxum euh, sëñ ba sëñ sëñ Mbàkke Caam euh, mag ñëpp alaaji Ibrahima Dia euh, mbooleem seex si ñi nga xam ne ñoo aju ci ci kër gi kenn ku ci nekk kër Baay Laay Gay ak ñëpp sëñ Mudu Maama daf leen bind leetar yónnee leen ko ne leen sëñ gaawaat nee na nañu waajal bisub Daaru Salaam bi fi sëñ Tuubaa ñëwee woon daa di dem ci ku ñuy wax alaaji Birahim Mbay alaaji Birahim Mbay ci magi taalibe yi nekkoon ndakaaru la bokk booba ku mel ne alaaji Mor Ndiaye Jum alaaji Matar Joxaane alaaji eh, Aliou Ndiaye Mambenda eh, alaaji Masayar Thiam alaaji Mbacke Diop alaaji Naar Babu boobu ñooñu ñooy magi magi magi magi ndakaaru ya ñoo doon magi ndakaaru ya ñoo ñëpp maam sëñ Muudu Maamoon yónnee ci ñoom leetar yónnee Kawlax ci alaaji Mor Aana Soxna dëkk bu ne alaaji Mor Aana Soxna moo njëkk defar barabu borom gaawaan bii maa ngi siyaar njaboot gépp ñooñu ñoo àndandoo nag ñëw Daaru Salaam ci 1939 1939 bi at mu nga xam ne ci lañ wax ne ci la guerre 39 45 am 39 la ñu woote waat màggalu Daaru Salaam gii biñ ko wootee ñëpp daje sëñ Mourou Mamoun ñëw ci maam Cheikh Anta na ko nu ñuy def mbooloo mi di ñëw nañ teraanga yi ñëw na mu ne ko da ngay dem laaj sa maam bu so ba xam nu ñuy def sa sa sa baay Mbacke mu ñëw ci laaj Mbacke Bousso na ko nu ñuy def mu ne ko sëñ Touba ku koy wooteel bis alxuraan nga ciy jiital kon nañ jiital njàngum alxuraan mi nañ ko tàmbali ci bis bi mu demee woon Daaru Alimul Xabir di ko jàng ba àgg ca bis ba su ñu àggee ca bis ba mu fi jóge woon nag dem dem dem Daaru naan ñu def ko muy bis bis bu mag bi. ñu tàmbali njàngu alxuraan mi ñu laaj sëñ bu sa mu ne nan ko jàngal limi ati sëñ Tuubaa yi nañ jàng kaamil yu toll noonu at moomu juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom la jàng bi fukki kaamil ak juróom ci la sëñ Muudu Maamun dajale ci jamono jooju junni ci xaalis jox ko jànkati alxuraan yi ca déwén sa la ñu jàngaat téeméeri kaamil sëñ Muudu Maamun jox leen ñett junni ci xaalis kon njàngum kaamil màggalu daaru salaam ci juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom la tàmbalee xaalis bi ñu ciy joxe tàmbalee ci ab junni loolu ci teewaayu ñii ma tuddoon waaye ci teewaayu maam Cheikh mu def ko benn at ba ko ñaareel fekki waatu ko ca ñetteelu at ba diirub loolu nag ba ba ñu agsi 1969 sëñ Moudou Mamoun moo jiite màggalu daaru salaam ñuy def at mu jot fukki fan ak juróom ñu daje fi bay jàng. ay ñeenti junniy kaamil wala ñeent fukki junni kaamil jëm juróom fukki junniy kaamil di ko jàng di ko def addiyey sëriñ Touba yaakaar naa ne bam mu agsi tey jii ci loxol sëriñ Abdul Khadir ak euh, Serigne Mor ak seen rakk di Serigne Abo ak seenu njaboot di maam Cheikh ak bokk yiñ ko àndal yëpp muy bis boo xam ne daal euh, bisum mbégte bisub texe la. Sëriñ Tuubaa it waxoon ne ku teg sa tànk ci suufu Daaru Salaam ñu jéggal la say bàkkaar kon muy bis buy far ay bàkkaar bis la boo xam ne it suuf si day faj jàngoro ju mën a doon kon màggalug Daaru Salaam a lii mooy taarix bi ci seen émission ëttu ngeen àndan ci ak seen mbokkum taalibe Fallou Galass Syll dana ñëw ak yéen ci sunu ñaareeli numéro mu jëm ci sancub Daaru Salaam ak la ca aju ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di balu àq ñëpp di leen baal àq wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.